الذي خلق الخلق وجعل منهم رسلا واصطفى من الرسل محمدا وجعله اكرم الرسل وخير العالمين وجعل امته اكرم الامم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فمن امام الله الى جميع تلاميذه والمؤمنين رجالا ونساء كبيرا وصغيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى اهلكم موجبه أسعركم بأني أسلم عليكم وأسأل عن حالكم خيركم وعافيتكم ودياركم ووصيكم بالاجتهاد في طاعة الله ورسوله وتوكيد إيمانكم وتعاملوا الخير وتحابوا أن الدين النصيحة فأما النصيحة في أن تنصح لله ورسوله وكتابه ولأئمة الدين ولعامة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ah, ñu ngi ubba ko tur borom bi subhanahu wa taala Diko bakka diko magal diko màggal diko ko kañ di jiin di ko ci dayoom yi mu am yépp mom sunu borom subhanahu wa taala di julli ak di selmal ci ki gën ci mbolem limu mu bind muy seydina limaamullahi alayhi salatu wassalam ci wayam bu jëkk ak wayam bu mujj di ñaan yalla nu ko yalla dolli leer ak yermande ak sañ-sañ ak martaba ak ramu jotaleel ñu ko yoolu ñaan bi taasu ci barkeem di muslu ci seytaane di ñaan ni ko yàlla jënge woon ci weeru koor wii ba mu dem ba nga xamante ne mënaluñu dara ci weeru koor wi tey jii ci suba gi takk na ay bagage am ànd ak mbégte bu dee avion lay jël bu dee oto lay jël bu dee ngelaw lay jël lu mu mënti doon préparé na ay bagage ngir yàqal nu fanweeri fan yu woor yépp ci bésu tey bii ak lis sunu dund kon ñu ngi ñaan iblis moomu yàlla na nu ko yàlla jëngal ba bu mu xaj suñuy wax bu mu xaj suñuy jëf barke bàyyi lay mu baax na di siyaar ak di nuyu xalifatul muslimina seydina muhammadul muxtaar ibnu seydina ma njoon di ñaan yàlla na ko yàlla yàggal yàlla dolli ko wér ak jàmm ak sutura teraanga woyefal yan bi ci kawam ak mbooleem njabootu bàyyi laay gi ci ginnaaw bi yëpp ci góor ak jigéen mag ndaw rawatina njaboot gi ñu àndal fii ci dëkk bi yalna na yàlla defal leen jàmm te dool leen sutura xéewal ak mbooleem saabay bàyyi laay yépp fi masharixil ardi wa magharibiha di ñaanal ak di fàttaliku Chérif Abdoulahi ibnu Seydina Issa Rouhou mi nga xamante bi mooy premier Korité boo xamante ne fekk ko ci biir kuréel bi waaye lu fi ngëneel ak xéewal yàlla na yàlla tëbb fa mu nekk moom magam yaag rakkaam yaag way juróom yaag njabootu bàyyi laay da nekk barzak yépp ak mbooleem jullit ñi di nuyu waa ahlu laay te di leen ziyaar di baalu ak ñëpp te di leen baal di ñaan yàlla mu kawe mi yàlla na nu yàlla boole baal te jéggal nu may ñu teew ak déwén yu bari mu rafetu fekkin lépp lu ñu fi jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu lépp lu ñu fi rëccale yàlla na nu ko sunu boroom jéggal barke bàyyi laay mu baax mi ah xam ngeen ne korité ci kër Seydina Limaamu Laay lu am solo la ndax bàyyi laay mu baax mi ku fonkoon weeru koor la ku fonkoon itam dundal koor ci zikrullahi ak ci saraxe ak ci def lu baax ak wax lu baax kon sanga boobu Seydina Limaamulaahi ni mu doon dundale koor yàlla dimbal nañu ñun ñii waa ahlulaahi bi mu fi jógee ba léegi lu ëpp téeméeri ak fanweer Seydina Limaamulaahi dem ci biir suuf ñun saaba yi ñu ngi koy roy ci sunnaam ak di ko roy ci na mu daan jaamoo yàlla ci weeru koor yi ak ci lu dul weeru koor kon nag ñu ngi leen di gërëm ci turu sanga yi ci taxawaay bi ak doxalin bi ak pas-pas bi ak ngëm gi ak sellal gi nga xamante ne kuréelu ak lu laay bi nga xamante ne nekk nañ fii ci Amérique ni ñu taxawalee weeru koor bi yàlla na yàlla nangu lépp yàlla na yàlla nangu lépp ci barke bàyyi la ah sanga boobu di Seydina Limaamu Laay xam ngeen ne weeru koor bi nga xamante ne moom mujj ci kooram weeru koor wu metti la weeru koor wu tar la woon ci moom weeru koor wu yéeme la woon ci moom waaye amu ci woon lenn ci tar géeg yéeme gi lu dul rek bëggoon noo texel ñun ñi nga xamante ne ñoo ko yaakaar defe naa ne du jar ñu ciy dellu si waaye ku fàttaliku ci ginnaaw ci jàngale sëriñ Ablaye ci jàngale mag ñi ci diine ji ñun ñëpp ba tey jii bu ñuy nettali ak di fàttaliku konte Seydina Limaamu Laay googu day mel ni tey jii la woon ci nun ndax coono ba mu ci doon feebar ba mu àndaloon yaram wu jeex wa mettit wa ak tartar ba waaye lépp bàyyi laay fëskee ne dem wuy ji ngir jooxe sunna ngir màggal boromam waaye ngir itam sunu bakken yii ngir itam sunu jëmm yii ngir itam sunu njaboot ak kuréel bi yëpp tabbi aljan loolu rek a taxoon bàyyi laay doon sonn ci côté boobu ba muy dem wax na leen ne xam ngeen ne aji dee laa te way dee fa dëgg yàlla ndax dina jiite ñuy dund boo leen yéexee du ma àgg jàmmalaay dox coono ba metti ak la ca xew lépp ba mu àgg dëpp ci suuf jibril daal di ñëw malaakal moo ci ñëw ñaar ñëpp a ñëwandoo keroog jibril ñëw na malaakal moo ti ñëw malaaka muuti ñëw na ngir lakk ndigal ngir jël ak ruwam wala déet jibril ñëw ngir xam ne sanga bi am na njaqare am na tiis am na lu ko naqari ci biir xolam jibril ñëw di laaj si lan mooy sa naqar ak lan mooy si tiis mu nekk aw ma naqar ci sama bopp aw ma tiis ci sama bopp aw ma tiis ci sama njaboot waaye tiis ak naqar bi ma am yëpp mooy umma xeet bi yëpp jibril ne ko loo bëgg ci xeet bi mu ne ñu texee ñu ñëpp di ma aljana jibril dellu ca boromam fekk borom fu mu toll daal di nekk sanga ba de tiisam bi ma yónnee woon ngir ma laaj ko ka njaxareem bi ma ko yónnee woon ngir ma laaj ko du dara lu dul nee na bëgg aw xeetam texe yàlla nekk d'accord naa xeetam bëpp texe na jibril dellu siwaat ñu wax ko bàyyi laay bàyyi laay daal di ree tàmbali mbégteem ma tàmbali kontaanteem ba fàtte feebaram ba fàtte coonaam ba fàtte lépp daal di jug taxaw daal di kàbbar jiite jiite jiite julleen boobu kon de kooku amuñu fayam li nu li nu li nu ko war a fay mooy ñu sax ak di ko ci ay sunnaam mm-hmm. tey ci lolu la jëm ndax bo len fatalako julli gi ñu mujj julli mu tabaski dañu jël khutba baye lay bi tàmbali ci nasiha yi jël nasihatu lillahi tay nak ñu jël nasihatu li rasulih moy lay biir jëm ci ndaw baye lay dafa wax inna diina nasiha mu ne diine de lay biir la wa waa ñu nekkal wa ma nasiha lan moy lay biir mu ne fahi an tansaha lillahi moy nga rafetal jëm ci yàlla wa rasuli ak ab yonentaam wali kitaab yi ak téeréem ba wali ayyamati diin ak kilifay diine yi wali ammatil muslimin ak mbooleem jullit yi mu ne wal wan nasihati li rasul yi nag laay biir jëm ci sang bi antu umina bihi mooy da nga war a dëgëral ak di feddali sa ngëm ak sa sofeel ak sa yaakaar ak sa doyloo seydina limaamu laay alayhi salaatu wasalaam watu saddiqahu nga koy dëggal bu adduna bépp daje woon di weddi bàyyi laay ak di ka diingat ak di ka jéem a kolaas yow sa ngëm nay gën a wér li Seydina Isaa waxoon bu àdduna bépp daje woon gëm sama bàyyi man wóor na ma ne sama benn ngëm buñ ko tegee ci balance mu daaneel ngëmu àdduna bépp ñun ñëpp nag taxawaay boobu lañu war am ci ngëm bàyyi laay bi Seydina Isaa amoon bu àdduna bépp daje woon weddi bàyyi laay ñun sunu ngëm buñ ko tegee ci balance teg weddi waa àdduna mu daaneel seen ak weddi ndax xam nga ne kii nga yàlla moo ko yónni wa tattabiaahu bàyyi laay nee na yonente boobu da nga war a topp topp ci lépp loo xamante ne digal na la ko waaye fii maa amara ci lépp lu mu la digal wa tatruka nga bàyyi am maa naxaa ci lépp lu mu la tere anhu ci moom wa taamala ndëg nga jëfe ala sunnatihi ci suñu Seydina Limaamu Laay waa nan ñun nanu xool suñu bopp vérifié suñu bopp ndax sunnaam yooyu ñu ngi ci am déet wala dañu ko cof am déet wala dañu ko bàyyi xel am déet ab yonent ndëg booy laaye biir jëm si moom dafa am juróom-ñaar yoo xamante ne faw mu nekk ci yow pour laaye biir gi mat man a mat mooy al nga gëm ko gëm gu wér tas xeexu imaan yi di di di féddali ak di dëgëral ak di beesal sa ngëm gëm ni kii yàlla moo ko yónni ndax bàyyi laay bu ko yàlla yónnil woon ba tey jii diineem fay na kon ñun duñu ñëw ba Amérique gii toog di daw ay kilomètres ngir ñëw di mottali sunu seydinaa limaamu laay alayhi salaatu salaam ngëm moonu ko may yàlla daal di wax ci alxuraan ne huwa alladi arsala rasuluhu bilhuda wa diini alxaq li yuzhirahu ala diini kullihimi wakafa billahi shahida mu ne moom yàlla mooy ki nga xamante ne moo yebal ndawam loolu Seydina Limaamu Laay bil hudaa ci ak njub wa diinil xaqi ak diine ju dëgër diine ju wér diine joo xamante ne amul lenn lu ci mën a kolaas amul lenn lu ci mën a dindi muy diine Seydina Limaamu Laay ñu liu sirahu ala diini kullihi mi nag yàlla fas kaane kaa yëkkati fas kaane kaa feeñal ci kaw diine yépp kon loolu nit ki booy booy gëmu bu yonent ngëm googu ngay am deugural sa ngëm ci mom wane nek ki yàlla ko yoni di ko jëfe ak di ko waxe ak di ko doxe mu ne yàlla doy na seede sa ngëm sédal ko yàlla sa ngëm wan ko yàlla sa ngëm joxañ ko mu jëm ci yàlla mu xamné ki nga gëm muy mom moko yoni yónni yow nangu ko deugal nga benen beneen bi ci top wal iman bima anzala alayhi xaqun wawul quraanul karim kitaaballahi yàlla daal di wax ne tanzilul kitaab min allahi al aziz mu ne nga gëm ne lii mu woote yàlla moo ko yónni waaye yàlla bi mu ko yónnee daf ko dooleel jox ko ay waxam jox ko alxuraan moo tax mu ne sunu borom daal di wax ne maa wàccee téere bi muy ak karin muy ak njàngale jëma ko ci moom Seydina Limaamu Laay ba lépp lu mu wax muy dëgg lépp lu mu tere ñu war kaa bàyyi boo leen seetloo damay koy xalaat démb toog di xalaat ci korite bàyyi laay bu mag ñi naa wàccee alxuraan di jàng kaamil ci korite gi ñëpp dañuy jël jukki waaye Seydina Limaam du jukki ñépp dañuy toog yor jukki waaye sanga ba daawul yor jukki bu ko yoroon rek ñu yedd ndax na biir ummi yu la waaye ñi jàng mu ngi lay demay nopp fu waay jum bàyyi lay ne ah ma borom waxul loolu de xool leen dayo boobu moom rek lañ mën a tagg Seydina Limaamu nekk yonente bu jàngul bi mu doon mu doon aw tagg waaye kuñ fi wax ne jàngoo mu doon xas déggoo anglais nga yaakaar dañ la xas déggoo tubaab dañ la xas déggoo italien dañ la xas waaye déggoo wolof nga naan noonu man sama wolof leerul waaye te bàyyi laay yàlla ko yónni bu doon lakk ay wolof waaye wàccee téere bi ci moom def ko ci dënnaam def ko ci xelam def ka ci làmmeñam waaye bàyyi bu ñu toogee nag korité wala lu mënti toog di jàng kaamil ci kër Seydina Limaamu bàyyi laay fa mu toog lay toog sëwénu mag nga di jàng alif lam mim zaalika kitaab ba minal jinnati wan naas waaye lu ci waaye juum bàyyi laay ne ma borom waxu loolu lii la ma borom waxoon kon nag loolu lu am solo ñetteel bi mooy mahabbatuhu nga bëgg ko moom Seydina Limaamu mbëggeel goo xamante ne da lay gënal sa ndey gënal la sa baay gënal la sa maam gënal lay junni comme li xëli baax nañu waxee gënal ngënu sunuy ndey gënal ngënu sunuy baay te yaa gën sunuy maam gënal nu ay junni moom mooy ki nga xamante ne moo gën a yey ci nun ci sunu bakkan moom Seydina Limaamu Laay dañ ko war a fonk moom Seydina Limaamu dañ ko war a bëgg moom Seydina Limaamu dañ ko war a moom Seydina Limaamu dañu war a fu nu toll nga yëg ci sa bopp ne yow bàyyi laay moo la gën a sa bopp nga yëg sa bopp ne bàyyi laay moo la gënal sa waajur ngay yëg sa bopp ne bàyyi laay moo la gënal sa alal ngay yëg sa bopp ne Seydina Limaamu yonente bi yàlla bi moo la gënal lépp loo xamante ne am na mbëggeel boobu loolu nag lan moo la ko mën a may mbëggeel di am sa soxna wala am sa borom kër wala am lu mat doon mbëggeel gi nga dox sa digganteeg moom ba mu lay gënal lu ne lu mu la bàyyi bàyyiloo nga bàyyi lu la def lo nga def lu la wax lo nga wax mu ne nag mbëggeel googu bu fekkone ben la dang ko wara tripler sa digeunte ak sayyidina ali mam mu gën la lulul mom motax yàlla wax ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim qul atii'u allah wa atii'u rasul fa in tawallaw fa inna allah la yuhibbu al kafirin yàlla ne yonte bi waxal sa gaay yi ne leen bu fekke da ngeen bëgg yàlla bëgg leen bëgg sayyidina ali mam ku bëgg yàlla bëgg la rek setal sa mbeug fi mu tollu ci Seydina Limaamu bu sa mbeug fi mu tollu ci Seydina Limaamu rek yëgal ne yàlla beug na la lu ëpp loolu moo mu ne in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhbibkumullah top len ma solo ma topé rek ma teg len ci yoon wo xamantene yàlla din len beug te yàlla kumu beug bëgg rek yaxfir lakum zunukum daf lay jéggal say bàkkaar wallahu yàlla afur rahim kul allah yàlla ne top len ko mom beug len ko top len yàlla top len ndawam mom mi nga xamantene moy dogal suñu borom mu ne nag yàlla nag bëggul ku bi bëggul ab yéefar yàlla bëggul ku bi bëggul ab yéefar nan xool suñu bopp suñu mbëggeel fu mu tollu ci Seydina Limaamu Laay ba ca topp mooy ñeenteel bi mooy wàcc si naa bi nax yii wa na wala nawaa yii mooy nga bàyyi ay tere moom seydinaa Limaamu lépp loo dégg ne bàyyi laay tere naka yow garal sa bakken ci bàyyi ko ndax bàyyi laay lu mu tere rek yàlla moo ko tere te lu mu tere boo ci boo ci nekkee safara la lay jëm lu mu digle boo ci nekkee aljana la lay la la lay yóbbu yàlla waxaat ci alxuraan ne wa ma ataakum rasul fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp loo xamante ne yonente bii di Seydina Limaamu Laay andil na leen ko yàlla nee na jël leen ko téye ko jëfe ko doxee ko waxe ko waaye lépp lu leen sang bi tere na ngeen ko bàyyi beneen bi itam nga gëm ne wa annahu xaatimul anbiyaai wal mursalin nga gëm ne bàyyi mi nga gëm moo jeexal yonente yi moo tëj yonente yi te mooy seen tampi moom Seydina Limaam te lu yàlla bind ci lu mu bind muy yonent muy nit muy jinne Seydina Limaamu laay ci gën loolu ci ci ci laa biir ci bàyyi laay la jëm ci la ci nga de sax laa biir ci moom dafay wér mooy nga gëm ne moom mooy tampe yonente yi moom Seydina Limaam nga gëm ne mooy xaatimul anbiya nga gëm ne mooy xaatimul mursalin nga gëm ne mooy Seydina Muhammad démb di tey maakaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin bi yàlla nee na yëg leen ne Mouhamed moom parce que Baye Laye bu doon wax du wax man limaam day wax Mouhamed moo tax yàlla ba muy wax ne yëg leen ne Mouhamed du bàyyi kenn ci yéen waaye yëg leen ne mooy ndawal yàlla la te moo tëj mbooleem yonente yi ba ca topp mooy nga nga nga nga nga topp ay sunnaam sunni Seydina Limaam nga topp ko à la lettre léegi nag dafa am mbir mu am ci suñu biir ci suñu Seydina Limaam ku nekk doo cosaan loo ca bàyyi laay waaye da xool ka nga yaakaar wala ka nga topp ci àdduna wala ñii ne man diw ma jàngal lii mu wax laay wax bu keneen waxee sunna bi gëmuma ko kii ne sunna bii diw moo koy def diw defu ko gëmuma ko waaye lépp lu ñu la wax lu jóge la ci bàyyi laay muy sunna tam wóor boo ko déggee jëfe ko bu te seet ne maali nga ko joxe

muy fekk di gis di dégg bàyyi laay di wax muy bind di noté bàyyam bàyyam Thierno si la daf ko fa bàyyi ñibbi Dakar bàyyi kat ci bàyyi laay ngir moom muy noté di bind ak li mu gis sëriñ Modou boobu ngi ñoom ñëpp a ngi fi joxe nañ yoo xamante ne lépp luy sunni bàyyi laay ñu ngi ko wax mu ne laxat kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wal yawmil axira ñeel la leen ngeen roy ci moom roy bu rafet ci bu fekkee yaakaar nga yàlla yaakaar bés bu nu jëm ba ca topp mooy nga koy jotaleel Seydina Limaamu Laay dee ko joteleel ay ndigaleem yi nga xamante ne digle na ko waaye lépp lu mu tere nga fexe bàyyi ko ba ca la ñuy jéexale suñu wax mooy sunu Seydina Limaamu Laay yooyu ma wax léegi dañu ko jaxase yàq ka def ci lu ne ba kenn xàmmeetul wala kenn dara doylootul ku nekk yaa ngi palamtu te libaas nee na palamtu warul ko am njàccaar lu jiitu mune xana bëgg daanu ci am kan réer ak nen kom bay Lay looy paranto bay Lay dem na fekk ko fi sayna isa fi bay Lay neena lima fi indi ak lima fi def mom bu yoké def leen su teree bàyyi leen sayna isa ro Laye ñëw defar ba mu bax tay sunu julli gi it yi ñu julle dégg nga ni ñu xaré sikar boobu bay Lay fi indi mais sayna isa bi mu ñëwee dafa soppi ci waxtu julli ne bu ñuy julli wax leen ko ni ñu koy waxé noonu loolu Seydina Isa moo ko dindi mm, azaka ji fukk la woon mhm. Seydina Isa def ko juróom mhm. ca juróom yi itam bés mag ñi ñëw leen di dem Gàmbi ñaan lu ko mu ñaana leen ñu dem ba ñëw indi xaalis bu dul jeex génn juróom yi mu ne waaye déet waaye da ngeen ma ñaan la woon yàlla mhm. ma ñaan yàlla mu def mu baax bu yàlla yokkee yokk leen mag ñi keroog joxe fukk loolu mooy diine Seydina Limaam ci wér de bàyyi laay ñun ñëpp amatu ku ko respecté ndax a bàyyi laa la ñu nekk nan lañ koy toppee nan lañ koy roy ku nekk tey exemple paparaan nee na démb koor gi jeex na est ce que julli na géewe pour moom julleem yëpp koor koor la pare na si na pare na si am na sama kaas suñu ci bari biig julliwuñu géewe biig naafilawuñu biig julliwuñu safaa biig julliwuñu wéetar parce que la ore nanu jeex na kooku seetaane jàpp na ko ci ase bi mu lalay ay bagage am bi mu kooku la jëkk ko jot mooy ki nga xamante ne bi ñu signalé ne ori nañ rek julliwul géewi démb naafilewul démb julliwul safa julliwul wétar te daan nga pour kool wér dawi bàyyi laay joxuñu ko muy suñu laisser passer dunya wa uxra da ngay xool ci àdduna fi ne nii groupe whatsapp yi tur yàlla ñu lay jox yëpp lan lañ lay wax pour lii la boo ko sa affaire dina baax sallallahu ala nabi di nga am xéewal lële lële di nga am te àdduna rek lañ lay wax te yow yow yow bàyyi laay jox la loo xamante dunya wa uxra gaa yi lay def diguñu àdduna diguñu àdduna de lii jox sunu àdduna dañ baax sunu àdduna dañ ci dinañ am sutura waaye duñu am lu ne gàññ ñëpp ba ñëpp di ko yem waaye loolu la yem mais àllaaxira la ñu bàyyi lay dig te lii mu digal muy werdaam wii ak tasabam wii ak yëfam yi ay sunna la ci sax werda wi ni ko bàyyi lay diglee tasab bi ni ko bàyyi lay diglee nanu ci sax ku julleeti na ngay tasab ndax tasab boobu mooy tax du ñu des ci bàmbeel julli yaa ngi tey laayeen ñu ngi delloo si salaat tasbix ñu ngi delloo si fay fay faat yooyu yëpp ñu ngi koy indi te koo ci okkoon laaj que ne que jullit yor yor di bàyyi lay digle mu ne xamuma ko te di rey sa bopp ci jullit fa fay faat di rey sa bopp ci salaat tasbix di rey sa bopp ci loolu te bàyyi lay mag ñi dañ daan di bàyyi lay a woote mag ñi dañuy fanaanoo di naafila di jaamu yàlla bay table julli fajar bàyyi laay seetlu seetlu seetlu seetlu ba ci yàgg daal di oo ñëw mu ne waaye yéen lan moo tax seen seen ngeen di tardé fajar gi la moo tax ngeen di sàngam mag ñu ne ka ah, limaam fanaane fanaane naafila rek fanaane ci tur yàlla yi rek bàyyi leen een gàttab gis leen jox doyu leen mag ñu ne ko déedéet mag ñu ne ak ah, xëy doy nañu kay waaye leen bàyyi leen yu bari yooyu ak xuraafaat yooyu ngeen jël sama julli gi yoor yoor yi allah bu mu ngoonee mën nañ ko gën a leeralaat mm. julli gi yoor yooyu bàyyi laay jox leen julli yoor nee ne nit dina fanaanee julli di fanaane werda di fanaane jaamu yàlla nga xëy julli sama julug yoroo ñaari rakk yi bàyyi laay nee nga nga am jaamu yàlla àdduna ak àllaaxira tolool ci suñu bàyyi laay dañ ko bàyyi xel weeru koor wi bàyyi laay nenu bu ñu tàmbalee début ba ba fin ba bis bu ne nanu jàpp laylatul xadri yàlla ci boppam nee na kenn na ci yéen xamaluma ko laylatul xadri yonte bi laa xamal dama ko nëbb xamu kenn xamul fii la wala xamul fii la yow nga am fit nga am dayo ne ne bés sànga mooy bu doon bés sàngam laylatul xadri jaru kenn di or nanu bàyyi ba laylatul xadri ñu jàpp bés boobu or ko jaamu ci yàlla ñu fay ñu jaamu yàlla quatre-vingts ans bàyyi laay ne comme xamu man na ko yàlla xamal taman sax nëbb naa leen ko pour bëgg ngeen fonk weer bi Seydina Limaamu ne bés bu njëkk ba mën naa ne laylatul xadri ba bés bu mu jéba mën naa ne laylatul xadri jàpp leen bés boo leen xëyee laylatul léegi laayeen soppi ko ñun laayeen yëpp kuréel dëkk laayeen boo dem ñu ngay màggal guddi laylatul sa bopp la weddi sunnay bàyyi laay la weddi sunnay bàyyi laay la wax naa ko si ci waxtaan ci internet bi bés ay xale di ma saaga ndax dama ca daan dem ma ne Sénégal man len waw dama ca daan dem mais tay gëm naa ne bàyyi laay waxu ko gëm naa ne bàyyi diglew ko bayina ko te damay dina ñaan yàlla yeesi kuma ma mën yepp nga bàyyi ko loolu moy aduna kon nak nanu ko ba leetu xadri yoy ñu dogal du sunna sayyidina limam sunna sayyidina limam moy du début au fin nga jàpp ko leetu xadri benen bi tay moy jullit niw ci sunna baylay la aduna dafa am nu ñuy jullee niiw bàyyi lay am nu mu ñu digalee ñuy jullee néew. yow nga ne tey ma ne Pape Parane ma ne man Pape Parane Malick 10 20 30 yi bàyyi lay digalee jullee mais dafa yàgg man du ma ko jullee. tax nga nga koy défendre muy bàyyi lay sa maam wala muy ab taalib wala ku manti doon ngay défendre sa sa sa nafsu yow. sa teyu bakkan bëgg bàyyi sunnee bàyyi laay te sunna si bàyyi laay dafa wax ne 10 20 30 40 ixlaas asalaamualeykum. asalaamualeykum talaay ñu bari bàyyi nañ ko ndax lan seen teyu bakkan maam ji bu koy jullee. ñu ne maam Ndiir dafa julleem bi dafa yàgg ñenn nañu naan dañuy dem taxaw fële maam Ndiir ne ne mu leen lii jaamu yàlla moo leen tëdd te bàyyi lay ñu leen ko digle te bàyyi lay neen képp ku ko jullee nga dem àjjana nga bëgg sa teyu bakken tax ki ngay jullee nga bëgg kaa xañ àjjana wala nga bëgg kaa problème loolu ci sunnee bàyyi laay la te te te ñu ngi koy soofal bii ñuy def itam ci sunnas bàyyi laay la waa adduna am na nu mu ko defee mais nii ngeen dégg ñu koy jullee ci koor yi loolu mooy safaa witarub Seydina Limaamu Laay nan ko bàyyi xel te jàpp ci te téye ko ba mu dëgër dëgër ba mu bii itam li ñu nekk nii mu julli korite fu ab laayam nekk fu ay laayam daje demal foofu nga julli ndax mooy sunna bàyyi laay noonu la ko bàyyi noonu la ko bàyyi joxe ba ca des mooy azaka ji nga xamante ne sanga yu tedd yii ñu ngi ci ne di ci liggéey ak di ci dox ak di ci wax ngir bëgg ka dajale ni ko bàyyi laay diglee tey jii mën na joxe exemple

te bàyyi lay lan la digle euh, euh, euh, téeméer ña mille bu nekk nga génn ca vingt cinq loolu mooy li Seydina Limaamu Laay digle kon ñun laay bi ala rawatina ñu nekk Amérique li ñuy yàq ci ci am koom ci azaka yàqal ni ñu koy joxee am yàqal billaahi buñ ko dajale woon dinañ ci am njariñ dimbali ci njaboot bi dimbali si ñi ko soxla ba feex un an dootuñu gis benn laayeen buy taxaw di laaj azaka wala buy oote di ñaan mm-hmm. kon suñuy bàyyi laay la nanu ko dëgëral mm-hmm. nanu ko ci jàpp nanu ko taxawal ba ca topp mooy xitaanul awlaad mooy xarfal xale yi ci suñu Seydina Limaamu la bokk na mm-hmm. nanu ko def dangay ko na dama yërëm sama doom dama sànga billaahi bàyyi laay ëpp yërmande ku kudul yàlla ku dul yàlla bu fekkoon ne dafa am mett bu ci nekk Seydina Limaamu du ko sante alayhi salaatu wasalaam la moo tax mu sante xam na ne wér nga ci xam na ne ak cata nga ci xam na ne ak jaamu yàlla ngi ci xam na ne ak dëgër góor a ngi ci moo tax Seydina Limaamu Laay digal nga ko kon dëkk buñ ci am complex na mu ko taxawee di ko def beneen bi mooy maye xale yi bu nu yu jigéen yi bu nu ganee àdduna ca bésab ngénte ba bàyyi laay loolu ci sunnaam la bokk gars yi bu ñu ko sàggane na ko dundal bàyyi laay ne ku ci am sa doom bu bés baa na ko maye mais Assane day am eh. non, na non non si dafa fi dama ciy fiir ma ko sangam sangam déedéet bàyyi lay nee na def ko ndax kuy xañtu lislaam te doo làkkal xaleel wan ko yoon doo tee la may gune buum ngir muy moyok tooñ ci moom sanga bi nee na boo ko deful loolu de mooy mbasum diine roy leen njool boroom diine kon nag loolu moom lañ ñu doon indiwaat ba ca ba nuy euh, ñaar yuy jéexale mooy ci sangu set ak ci ak ci bisam bari na bari na ay coow lool bari na ay jaxasoo lool li gën a bon nag mooy ñàkk man ñàkk man man benn moo bon li li am solo la ñàkk man benn moo bon maanaam soo mënee ba pare góor lu fexe xam li si bàyyi laay parce que yëf yi dinaa ko wax ne euh, sangu set mi ñaari ixtilaaf moo ci am sëriñ saxeer la ak bàyyi li baax sàll am ci laay yëpp ci sangu set mi ci sëriñ saxeer la ak ci bàyyi li kii dafa jële fii kii jële fii mais démb am na Buxaari day jële fii xanbal am Malik am ngiri ngir yi ñeenti ngir yi ku nekk da nga jël te si yonte bi lañ jële te benn benn ngir bonu ci ngir yëpp baax waaye nag ngirum nabilaay mu Seydina Limaam moo gën li ci li am ci différence bi Serigne Sakhir wax ak weeru sala presque bariwul xam nga lan la ñett ñett yi raxasam ñett ñett yi foofu kese la li si ëpp foofu incha allahu rabbi bu nu yàlla may jàmm dinañ ko leer su nas bàyyi leen na ngir xam bi bàyyi leen digle di ko jëfe moo ko solo njàpp mi keroo maa ngi koy wax ak libaas ma nekk njàpp mi Seydina Limaamu daf ci euh, euh, euh, sunni njàpp bàyyi laay dane yàlla moom farata waaye man maa moom ne yàlla ma borom moom moom farata waaye man limaam moom sunna lu ma ci yokk man la lu ma ci wàññi man la bi mu ñëwee wàññiwul dafa yokk ci ci njàpp mi xam nga su sunna yi bàyyi laay doole njàpp bi banax ban ah yéegal njàpp ba ci say oom ak wisu ak boo jeexalee ne bismillahi rahmaani rahim ni nga koy tëjee ci sangu bi noonu nga koy tëjee ci njàpp mi ak lan xam ngeen lan euh, euh, ñu bari koy fàtte keroog maa ngi koy fàtte mooy booy booy àdduna booy booy booy jàpp sa baaraam euh, bu ndaw sànq xale mi ngay tàmbalee jëm nii tàmbale ci bu mag bi jëm nii bàyyi laay ne déet yow mi ma yaakaar booy jàpp tàmbalee ci baaraam bu mag bi dem boo ñëwaat ci góosu tàmbale ci baaraam bu mag bi dem ñu nekk limaam lu tax mu ne ndax maam seen maam aadama war a njàpp te ba muy jàpp euh, euh, ba muy laal garab ga ba mu xëccee jotul dafa sixamtalu ba mu sixamtalu ko samp ñaari baaraam ya ba mu ko sampee door a jot mbir ma bàyyi laay nee na bi nga as lépp fàtte loo mu ne ñaari baaraam yooyu laa bu ëllëgee duñ am dara lu leen jàpp loolu ci sunuy yi bàyyi laay defar ak faatiya bi ngay taaw taat euh, bi ngay jàng boo tàmbalee ba keroog ngay jeexal doo wax booy jàpp ci bàyyi laay ci sunu bàyyi laay bokkul ci ngay wax fa nga tàmbalee ngay tàmbali ba keroog ngay jeexal ba ca des muy julli gi laayam yu bari ñu ngi doy mooy li ma wax sànq rek ñaari ngir yi am si sama kër falal mbir mi di jaxasoo te li gën a wér te gën a wóor ci kër bàyyi laay mooy bala ngaa sunni bàyyi laay bala ngaa julli tuddal yàlla loo wit na sax ba sa xol sedd muy benn yoon muy ñaari yoon bu la ci doy ba sa xol yëkk rek ngay door a jóg bàyyi laay nee na boo jugee leqaaman allahu ba mu jeex soo li ci kër bàyyi laay amul bàyyi lay diglewul ñuy lexaam ilimaan taxaw ni wetu bàyyi lay diglewu ko ci xër bàyyi bu ñu lexaam da taxaw jàkkaarloog per ku bi fas yéene lexaam waa adduna dañ ne booy lexaam euh, da ngay wetu ndax lan moo tax dangay bañ li ñuy tagg yàlla ñu yaakaar na yow la bàyyi lay neen déedéet nee na melal ni melal ni neuf bi ak latéral bi kay jox bal bi mu ne bu waa ji dóoree bal bi ñëw tegal dëna dóor parce que bu bu bu bu li xamee ba wax laa ilaaha illallaah bàyyi laay nee nee na xamal ne du yow nee na Muhammadu rasuulullaahi alayhi salaatu wa salaam wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir nga xamne du yow yàlla la moo bay lay laay jaru nga wetu yow mi gëm bay lay jàkkaarloog sa borom nga jox sa borom limu mom mais lay du bari dañ naan dañuy wetu wala am na ñoo xamante ne ñu indi yeneen yoo xamante xamoo fu ñu koy jëlee inna rabbakumullahu llaahu la ñuy wax lu ne bàyyi laay ne man waxuma loolu وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سيدنا الامام نين بو باري nga ne nawaytu ma ngi faskeene wala boko mëna wax ci arab wax ci arab boko mëna wax ci arab waxal ka ci olof ma ngi faskeene julli waxtu tisba ci bésab altine bu dee bu dee takkusaan nga ne waxtu takkusaan ci bésab altine mu ne bu dee timis nag nga ne waxtu timis ci guddik talaata bu dee bu dee nu mu tuddati geewe nga ne waxtu geewe ci guddik talaata daal dina allah akbar bay lay alayhi salam lolou la digle ci ci ci ci julleem bo paré sunna yi bokk na ca sar yi mu jagle ay sar yi mu tan ci suba tisba takusan timis gewé amna yu mu tan incha allah bu yàlla may ngot bu ci xajé ñu leeral lér ka mu gëna lér boy ñëw tayaba bay lay boro kon way bay lay da nga nan da nga yor ko ba ba daj nga ne amana billahi wa rasuli ci sunni bay lay la so jumee so sujud nga ne subhanaka inni amantu billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir so pare nga tok tay tay bi nag bay lay dool na si ashhadu anna lazi jaa bihi muhammad haqqun wa anna al jannata haqqun wa anna an naara haqqun wa anna saata atiya inna allaha yabasu man fil lxubur nga teg ca salaat ibrahima ah ci ci keur bay lay tim tamit ne ngeen baal ma lu jëkk li xam bi dégg si lu bari top aduna boo xëree laa ilaha illallah ba set saxul set jaru nga astafurlah astafurlah bàyyi lay digle ko parce que laa ilaha illallah ba nga wax dàq na iblis dindal say bàkkaar yow jaru nga astafurlah astafurlah boo laa ilaha illallah ba saxul set rek li xaamal nga def boo ñëwee nag euh, ci jeexal ba assalaamu aleykum baaraam boobu ñoon tàllal bàyyi lay daka tere nee na këram kenn du tàllal baaraam di yëngal da ngay da ngay yaru rek teg sa baaraam boo ne assalaamu aleykum kër bàyyi laay jaru nga naa assalaamu aleykum السلام باي لاي دانا السلام عليكم ني الله الله اكبر دور تود يالا لا اله الا الله دور جولي تيونتي بي دور تيت سنيان تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ثبتنا الله تعالى على جماعة المسلمين والمسلمات ثبتنا الله على طاعة الله ورسوله ثبتنا الله بالدين والإيمان اللهم ارفع درجة الإسلام والإيمان واحفظ درجة الكفار والمنافقين اللهم ارفعنا يا الله على فوق أعدائنا يا إلهي أن يكون أعداؤنا تحت أقدامنا تكي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تك مجيخ لي موي كير باي لا كون سنة نانو باي خل bañ cee caaxaan bañ cee la ci lay tëj suñu yëpp nag la mooy laa ilaaha illallaah juñ bàyyi lay tey way yëpp musique musicalisé nañ ku fiy génn cassette sax faw nga def ci écho wala faw nga def ci nu mu tëdd di instrument pour sa sikar pour pour sa sikar moo tax sikar ci kër bàyyi laay kenn jariñatul dara kenn yëgatu kenn sentiratul sikar parce que lan mo tax sikar si fawe nan ko dañuy dem di jël ay way jàmbur tourné ko di ko daaj ci kër Baye Laay dem jël ay wayu musique tourné ko di ko daaj ci kër Baye Laay te Baye Laay tawxiidu laa ilaha illallah bu wér la joxe ñu koy wax suba di ko wax ngoon di ko wax ca waañ wa di ko wax ca liggéeyukaay ba di ko wax ca oto ya di ko wax ca kaw lal ba di ko foo manti nekk laa ilaha illallah jooyu la Baye Laay def lañu Baye Laay defare mooy tax ab laayeen nga am ak dal mooy tax laayeen nga am ak mbaax mooy tax laayeen nga am ak njub mooy tax laayeen nga ku gis ku la gis bëgg la mooy tax laayeen tam sa xol bi dara du ci ne ci ginnaaw ki ñaan laa ilaaha illallaah jooju mooy tax sa xol bi dara dara dara iñaan du ci fanaan dara soxor du ci fanaan dara bon du ci fanaan dara lu lëndëm du ci fanaan mais boo xoolee bi ñu bàyyee laa ilaaha illallaah ku gis sa morom mer ku gis sa morom jëppi ku gis sa morom bëgg ka toroxal ku gis sa morom bëgg ka weddi ku gis sa moroom bëgg mu yàqule parce que lan moo tax li doon raxas sunu xol li raxas xolam ba muy fayaax lu cey lu gën mu dolli ko ba mel ni saa ba a baax lu cey lu bon mu rékki ko loolu la ñu bàyyi leen di bàyyi leen nag neen li ma wax ak li ma fi indi tant que waxoo leen ko tant que jëfoo leen ko doo leen dara àdduna lu jag bàyyi li ma wax li ma fi indi muy julli gi muy tasab bi muy werda wi muy azaka muy muurum koor bi yooyu yëpp bàyyi laay neen laa ilaha illallah yi tant que doxoo leen ko àdduna du jag yéen xuma àdduna waaye yéen seen dara du jag seen dara du baax suñu bëggee sunu lépp a jag te bàyyi leen lu yaakaar أن تؤمن به dañ koy وتتبعه wa وتصدقه ñu وتعمل على سنة جف أي سنام وتعمل الناس بذلك ala نبني لولو نبني جيغل sunnaam di tuubal suñu borom di len balu ax di len bal lu ci jup ñu xamne sunu borom la lu ci deung ñu xamne nun la sunu ngeum ak sunu yaakaar Seydina Limaam rek mo lay sonal fu nu tollu mo tax ñuy bëgg di wax ak di leral ci mom di siar sunu sanga yu tedd yi sunu kilife yi serigne Jàgg serigne bëgguma serigne malik serigne assane ak serigne jabo gi ñu àndal ñu ngi gërëm di sant seen taxawaay rafet na seen gëm bàyyi laay rafet na seen àndandoo mun rafet na li ngeen di def ci diine ji àdduna li bépp gis nañ ko seede noonu ngi leen di seede ñu ngi gërëm taalib yi seen saaba yi ñu ngi leen di gërëm ci seen tur maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal di ko teg ci loxo mag ñii bàyyi jaas bàyyi libaas ak nu mu tuddati bàyyi euh, béy ak gaa yi fa dëgg yàlla ak jigéen ñi ay jàmbaar lañu ñu benn yoon sonnuñu benn yoon lépp lu diine ji laajte ñu nga ca lépp lu diine bëgg ñu nga ca lépp lu diine ji def ñu nga ca kenn déggu leen ci dara dëkk bi lu leen ni ko koy def kenn déggu leen ci dara gaay yal na yàlla fay leen lépp loo leen bëgg soo ba ngoon muy ci góor ak ci jigéen fu laayeen nekk ci Amérique wala fu laayeen nekk ci àdduna di jëfee ndigalal bàyyi laay yal na yàlla defal la ndimbal yal na yàlla defal la sutura defal leen teraanga wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu